Serigne Abo Mbacké Thiam maa ngi lay nuyu. man maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne yooyu auditeurs et auditrices yu rajo Rewmi FM fépp ñu mën a nekk ci Sénégal di ñu déglu. voilà honorable député discours njiitu réew mi amal na ko ci 31 décembre bile ci tënk rek euh, yow lan nga jàpp ci discours bi euh, surtout lu am importance ci mesures yi nga xamante ne njiitu réew mi annoncé na ko. waaw njiitu réew mi annoncé na lu bëree bëri wax na ci wàllum. Euh, Covid 19 bi ñu jógee wax na ci résilience suñu économie ni mu taxawee wax na ci croissance wax na ci déficit budgétaire bi wax na ci wàllum euh, euh, euh, kii bi lu ñu koy waxatee di wàllum social ak lépp wax na ko mais liñ ci njëkk a mooy que ne li nga xam ne mooy ñàngat li nga xam ne moom lañ jógee ci Covid 19 bi ñu waroon cee am ay leçons yu ciy tiré waroon ci am ay njàngat yaakaar naa amul parce que ci Covid bi ñu fiy génn gisoon nañ situation bi ni mu waxoon que ni dañuy def li nga xam ne moo nekk souveraineté alimentaire et bi ñu ko waxee léegi ba tey lan lañ def gis nañ ci loolu yëpp dafa ñu furaas parce que tey boo xoolee tey jii nii le président Macky Sall waxoon nañu nañu dañ am autosuffisance en riz waxoon na ko 2017 wax ko 2019 mais quatre ans waa ngi nii chaque année le Sénégal day importer. plus de lu ëpp ci un million tonnes de riz ah, ah, riz blanc tey waxoon nañu tey aussi ci li nga xam ne moo nekkoon oignon bi ak culture légumineuse même bu fekkee oignon bi am na yoo xam ne ñu ko ciy def am na ci lu am solo lu ci amee lu ci bëri day mujjee nëpp day mujjee yàqu parce que li nga xam ne moom la ñu war a euh, li ko war a amul et tey booy xool euh, dañ ne woon euh, on avait waxoon nañu tey par exemple la production dina yegg ci quatre cent mille tonnes te tey pour des besoins yoo xam ne ñu ngi ko estimé ci trois cent cinquante mille à quatre cent mille tonnes et ba fi may waxee yow nii dañuy importer plus de cent trente mille tonnes d'oignon par mbay mi ni nga xam ne noonu la euh, nawet bi ni mu mu naatee ni mu taaro mais taxul mbay bi baax tey production bu catastrophique la ñu am ci li nga xam ne moo nekk wàllum arachide bi et que ñu bëri ci ñi nga xam ne ci ay borom xam-xam la ñeneen boo ñu ngi yegg ci cinq cent mille toñ lañ war a yegg alors ak ñoom li nga xam ne moom lañ ñu waxoon et que tey tomate boo xoolee mbay mi production bi wàññeeku na jóge nañ ci quatre vingt mille tey ñu ngi ñëw ci li nga xam ni deux mille en deux mille douze tey ñu ngi ay quarante mille tonnes en deux mille donc yooyu yëpp nekk na ay jafe-jafe yoo xam ne askan ñu ngi koy dugg wax na ci wàllum infrastructure infrastructure ñoom dañuy jël ay infrastructure yoo xam ni dañ koy jël juste di ko def ngir am ne ne tabax naa lu rëy mais après boo paree amul benn njëriñ ci li nga xam ne moo nekk ci askan wi gis nañ ci seen infrastructure yu bëri yoo xam ne lépp nañ ci dugal ci xaalis ba tey loolu bokk na ci li nga xam ni en dix ans li nga xam ne moo nekk dette bi nga xam ne moom lañ am muy bor bi nga xam ne dañ ko am ngi toll ci onze milliards trois cent vingt six yoo xam ne moom lañ nar a bàyyi suñuy njaboot gi ci moment boobu noonu ñun ñu wax ñu li nga xam ne moo nekk Cour des comptes di wax la la mauvaise gouvernance ci li nga xam ne moo nekk suñu alalu réew ñu ngi ko yore et que tey ñun ñu leen ko bàyyiloon ci deux mille sept cent milliards tey ñoom ko ci onze mille il a déficit budgétaire déficit budgétaire ngi ci cinq pour cent ci loo xam ne trois pour cent moom la yem waa wax ci loolu la war a yem te loolu li ko war a yëpp mooy infrastructure précieuse yi nga xam ne ñu ngi koy def di ci dugal alal te mu ngi ko ci dugalee amul benn rentabilité tey aujourd'hui on parle du BRT te BRT bi tey boo xoolee amul benn plan de déviation boo xam ne am na tey pour permettre Dakar nit ñi mën a circuler et que matériel yoo xam ne ba nañ ko il cinquante ans tey il avait parlé dossier de note li nga xam ne moo nekk suñu entreprise nationale yi te suñu entreprise nationale yi président Macky Sall rey na leen bi ñëwee en 2012 lañ fi bi nga xam ne Abdoulaye Sylla moo ko jiite jox ko marché deux cent cinquante milliards ñu jël ko ba tey jii loo xam ne amul benn suivi amul lenn donc bëri na ci des choses yoo xam ne wax il a parlé de croissance croissance dix pour cent mais croissance la croissance dañ ko lekk croissance dañ koy lekk bu fekkee boo ko bu fekkee résultat ba muy andi am na njëriñ ci askan wi mais gis nañ que ni ñoom seen infrastructure yi ñuy def yëpp amul benn njëriñ boo xam ne moom lay am ci askan tabax naa lu rëy def naa lu rëy ñoom loolu moom moo leen ci neex la pandé wax nañu ay promoville wax nañu ay piment wax nañu ay PUDC nekk na ci loo xam ne tey fi mu toll nii ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk bailleurs yi bëggatuñ cee dugal seeni xaalis parce que amul loo xam ne moom amul amul loo xam ne am na euh, rentabilité bi xam ni war na kii am na ci te boo demee dans le nord PUDC bëri na ci ñu bëri yoo xam ne yàqu na yenn matériels yi sàcc nañ ko donc c' est juste pour des affaires électorales moo taxoon mu def ko donc daal bëri na loo xam ne président wax na ko. te bëri na ci lu ci nekk boo ci jël lekk am na li nga xam ne loolu moo nekk ay jafe-jafe wax na ci wàllum sociale ci de notre budget et que tey budget bi yaakaar naa tey réew kenn munu koo yoree ci assistanat parce que tey li Sénégal yi xam na lan lañ soxla bu ñu bëggee faju faju suñu bëggee dem jàngi jàngi suñu bëggee du gi wàññeeku yaakaar naa loolu la Sénégal yi gën a soxla parce que dañ naan may ma jën jàngal ma ñuy nappee moom a ko gën a te moom président Macky Sall day jàpp que ni warul jàngalu nit ñi nappee mais ay bourse sociale ay de vingt cinq mille ay bourse euh, familiale yoo xam ne da koy jëlee vingt cinq mille yóbbu ko trente te boo demee tout ça da ngay gis ci benn kër nga gis fa xam ne ñoo bokk ci benn kër am li nga xam ne moo nekk bourse familiale ñoo xam ne nekkuñu ci euh, ci nekkuñu ay nécessité am li nga xam ne moo nekk bourse familiale yi donc yaakaar naa loolu yëpp ay jafe-jafe la par rapport ak li nga xam ne moo nekk ci discours bi loo xam ne wax na ko ci loolu daal laa amoon ci loo xam ne mënoon naa koo def ci njàngat par rapport ak discours président bi voilà honorable Serigne Abo beneen ponk euh, di impression bi nga xam ni ñu bëri loolu la ñu gis mooy yeewi askan wi ak wàllu ñaari coalition yi déggootuñu euh, lan moo ko waral bi si mujj gis nañ ni sax ci motion de censure euh, bi yeewi yóbbu assemblée nationale yéen voté wu leen ko euh, même ci concert de casserole bi mujj ci 31 décembre gis nañ ni euh, yéen tamit cautionné wu leen mbir mi euh, léegi daal da ngeen a divorcé wala qu'est-ce qui se passe jafe-jafe diggante yeeweeg wàllu àndatuñu wala yéen a ngi ànd ba léegi. noonu non non amul jafe-jafe parce que booy xool wàllu ak yeewe ñu ngi ànd ci élection législative yi te li ko waral mooy dañoo jógee élection locale moom ay résultats yu am. wàllu était moom wàllu presque ñu rek ñoo demoon et am nañ lu toll ci cinq cent mille voix ci yeewi askan une grande coalition dem nañ aussi am sept cent mille voix askan yi gis na tey ak wàllu bu ñu àndee mën nañoo am majorité à l' assemblée nationale ñu comprendre li nga xam ne moom la askan wi bëgg moo tax ñu dem ànd ci élection législative yi daal di am quatre vingt députés mais bu ñu demee assemblée nationale aussi kenn ku nekk da am sa groupe parlementaire yeewi dafa am groupe parlementaire am wala am groupe parlementaire kenn ku nekk am nooy doxalee li nga xam ne moo nekk sa groupe parlementaire am na situation boo xam ne moom moo posé woon muy la motion de censure ñu ñu jàppoon que ne dañu ba ñu ci impliqué wu ñu ci ñu décidé voté li nga xam ne moo nekk abstention te loolu yàqul lenn loo xam ne moo nekk ci diggante ànd bi suba bu ñu war a àndaatee aussi yeneen euh, ci yeneen mbir yoo xam ne dafay soxal askan yi dañu koy def comme nous l'avons toujours fait parce que c'est loolu la moom la PDS moom la loolu la PDS nga sa am donc yaakaar naa amul benn divergence wala amul benn xaajaliko boo xam ne am na ci l'intercoalition wàllu yeew ensemble ñu nekk nañ assemblée nationale ñoo défendre ndoo li nga xam ne moo nekk peuple bi par rapport ak ak budget bi ci wane liñ d'accord ñoo ko ñoo ko voté ndoo contre na delle situation bu posé woon te yaakaar naa dans l'avenir dootul posé ti parce que ñun ñëpp am nañ ci li nga xam ne moo nekk ñàkkat loolu daal par rapport ak concertation parce que ñun dañoo war on a décidé ñun dañuy dem ci débat pour dem déglu le discours du président Macky après mun ko commenter mën ci joxe suñu xalaat wax ci li nga xam ne moo nekk d'accord ci ngir askan wi ñuy déglu mën a comprendre fan la dëkk bi mën a nekk donc loolu xam nga loolu mënoo nekk ba pare dem na ngay dem def <laughs> euh, candidature yi nag mi ngi commencé jóg 2024 euh, pratiquement yegsi na élection présidentielle yi euh, Sonko nee na candidat la Malick Gakou candidat la Aminata Touré candidat la ak yeneen ak yeneen candidature yi daal bari na bu coalition toll moom kan la. ah yaakaar naa ñu moom suñu candidat ñëpp xam nañ ko. et hmm. depuis 2012 ñu ngi koy wax suñu candidat c'est Karim Wade il est notre plan A notre plan B notre plan Z et il a il il nekkoon na suñu candidat en 2012 en en 2019 astafurlah te en 2024 bi ñu jëm moom moo war a nekk moo nar a nekk suñu candidat. candidat fantôme di wax di wax militants yi di wax militants yëpp nañu mobiliser ni ñu koy defee ci njaayum carte yi te xam ni Karim il sera là et en deux mille vingt quatre il sera notre can candidat fantôme loolu yéen yéen yéen yéen koy wax. Ah, yéen a koy wax te loolu moom c'est votre a ngi wax wax que ni en deux mille vingt quatre Karim sera là il sera notre candidat et et et, et très bientôt même dinañ ko gis fi nga xam ne moo nekk Sénégal. mbaa dina indaale xaalisu askan wi rek. ah. ma ne dina indaale xaalisu askan wi. Karim Wade na doit aucun franc au Sénégalais. ah bon amul benn alalu askan boo xam ne yor na ko. seen léegi kañ question boobu dañ ko dem laaj ki nga xam ne moom moo ko condamné woon. Mhm. tëj ko jiiñ Sénégalais ne dafa jël seen alal ñi dem procès ba jusqu'à présent mënuñu la wax état du Sénégal lii lañ jël ci Karim Wade lii lañ recouvrer ci Karim Wade lii lañ am ci procès bi au contraire l' du Sénégal moo yoreel Karim Wade xaalis ndax ñoom lañ condamné ñu war koo fay lu toll ci deux cent cinquante millions d'euros yoo xam ne war nañ ko fay ki nga xam ne moo nekk Karim Wade ci dommage et intérêt li ñu demee ci li nga xam ne moo nekk ci juridiction internationale yi yaakaar naa ñoom ñoo yoreel Karim Wade ne Karim Wade yoroo li leen xaalis et que Sénégal yi namm nañ ko et que ñoom ñëpp foo tourné ñu lay wax Karim kañ lay ñëw ñu ngi koy xaar bu ñëwee incha allah rabi 2024 ñu jox ko réew mi. jël yéen a koy jox réew mi wala askan wi koy jox réew mi. askan wi askan wi askan wi déggoo déggoo nee naa la askan wi ñoom ñoo koy xaar. Mm, jox ñoo koy laajte te ñoom ñoo koy jox réew mi incha allah rabi en 2024 ñu ko joxee woon ki nga xam ne moo nekk le président Abdoulaye Wade en 2000. voilà Abo Mbacké troisième candidature bu Macky tamit coow li bëri na gars yi nee nañ du bokk moom nag dafa mel ni dafa bëgg a bokk yéen si jamais euh, Macky ne dafay bokk dafay poser candidature am lan mooy nekk seen taxawaay. taxawaay bi ñuy taxaw mooy taxawaay di peuple sénégalais bi am rek ñun PDS moom lépp lu ñuy def rek mooy nekk loo xam ne njëriñu lu askan nekk ñun PDS ñu ngi ci. et le président Macky Sall moom waxal na ko boppam nee woon na moom bopp deux mille vingt deux deux mille moo nekk. si la mandat wam di jeex et que mënatul bokk ci ay élection ñi ko wër ji ay collaborateur am di ay ministre am ñoom ñëpp wax nañ ko donc yaakaar naa ni loolu waru woon sax def euh, l'objet d'un débat parce que moom day mili nee na du bokk 2024 te boo ko tegee ci yoon teg ko ci moral teg ko ci politique ak loo ko mënti teg président Macky Sall mënta bokk te li constitution bi wax mooy nit mënta def lu ëpp ñaari mandat nit nag la wax te nit la la yaakaar naa ne génnoon ci règle boobu noonu donc le président Macky Sall mënta bokk ci élection 2024 Euh, beneen laaj bu am solo euh, gis ngeen seen collègue député yuuxoo yi ñu ko yuuxoo euh, ci manifestation bi ñu organisé woon ci vendredi bi naka nga ko gisee ay xeer sax jot nañ ko sànni Pape Djibril Fall mu nekk lu doy waar loo si xalaat yow Abou ah loolu moom lu ñuy ñaawlu la lu ñuy ñaawlu la te du lu nekk lu ñuy condamné la te duñ ko rafetlu parce que ci démocratie lañ nekk démocratie mën nañoo bokk gis-gis mën nañoo bokk wuute du ñu d'accordul ak man dama ko war a saaga dama ko war a yuux wala dama ko ça c'est de la dictature te loolu noonu yaakaar naa ñun ñëpp tey dañ koy condamner parce que ñun lu ñuy bañ ci li nga xam ne moo nekk ci kii ci jiite réew mi rek ñun waruñu ko nangul suñu bopp donc c'est des choses yoo xam ni maa ngi ci Massaw Pape Djibril Fall et di ko bokk ak moom parce que c'est notre collègue député au-delà c'est un comme nous et que nous sommes dans un pays ba nga xam ne démocratie lañ ne moom moo ko lal te démocratie moom kenn ku ci am sa gis-gis ak sa xalaatu bopp. dernière question Serigne Abo Mbacké Thiam euh, di rapport Cour des comptes jur na coow lu bari gis nga ba léegi coow li fayul parce que jàpp nañ ni. ni ñu utiliser woon xaalis bi waroon xeex euh, mbas mi dem ci néew di doole yeeg ñoom seen euh, benn parti ci askan wi ñoo ko pàccoo ci ay marché yoo xam ne euh, jaarul yoon yow loo si xalaat surtout que déclaration bi Macky def di wax Macky plutôt Amadou Ba na ko toppal mbir mi yow loo si xalaat. c'est c'est scandaleux te xol yu jeex la parce que au moment bi ñu naan toog leen seen kër yi xel yi jaxasoo Sénégalais yi dajale lu ñu am ak lu ñu amul. ñu boole ci budget état ay partenaires ñëpp jàppale ñu ñu ne ñu restez chez vous dañoo nekk ci situation dem ba andil ñu li nga xam ne moo nekk état d'urgence nekkee moment boobu ñu ñuy tëj ñu dóor ay liif ci tali di jàpp ay nit di leen def lu ne boobaa am na ñoo xam ne ñu jël suñu alal di ko di ko tongtongee di ci def lu leen neex loolu moo waral tey jii nii gis nga le président euh, tey di jël ministre des finances yóbbu ko benn émission ne ko demal nga défendre l'indéfendable tey premier ministre ne day consulter société civile mais bi ñu bëggee jàpp Karim Wade bi ñu bëggee jàpp Khalifa Sall demuñu consul consultation société civile tey aujourd'hui tey euh, li nga xam ne moo nekk ministre de la justice Ismaïla Madior Fall moom euh, kii la njombe la ci Sénégal Ismaïla Madior Fall euh, dafa bett nañu bari te Ismaïla Madior Fall buñ ko toppee dina bokk ci ñi taal réew mi ëllëg parce que tey gis nañ ko institution bu may ni Cour des comptes Ismaïla Madior Fall génn di leen ay wax yoo xam ne rawatina un professeur de droit yaakaar naa Ismaïla Madior Fall tey euh, dañ ko war a tey dindi li nga xam ne moo nekk titre professeur bi su fi ne président Macky Sall dañ ko war a euh, rétro euh, rétrogradé lañ ko war a def parce que il ne mérite li nga xam ne moo nekk titre professeur de droit ndax tey mi et scandale yooyu yëpp bokk na ci scandale yoo xam ne tey bokk na yeneen yoo xam ne am na scandale li nga xam ne moo nekk foncier daanaka ngi nii di jël suñu suuf. hôpital jox ko benn espagnol alors que avant ñu koy jox espagnol boobu noonu signé woon nañ ak beneen entreprise bu ñuy wax unité dem ba ca digg ba jox ko keneen xamuñu lan moo nekk contrat yi ba kooku noonu porté na li nga xam ne loolu moo nekk plainte te ba a ñoo gis am na lu ñuy wax aussi l'affaire des quarante cinq milliards mu nekk loo xam ne moo gën a garaaw moo ñuy wax naan ñu dañoo jënd ay armes pour secret défense alors que ministère de l'environnement amul mu ñëw plénière ñu wax ko mu ne dañ ko jënd dañ dugal ci budget pour di li nga xam ne moo nekk arme pour dooleel li nga xam ne moo nekk agent arme ñëpp gis nañ que ni secret dépense mënul am ci ministère te du ministère euh, de l'environnement moo war a jënd ay arme loolu c'est loolu c'est ci li nga xam ne moo nekk à l'armée si c'est encadré par le code des marchés publics on ne peut pas parler de secret dépense ci li nga xam ne moo nekk loolu bëri na ay scandale yoo xam ne am na ci régime président Macky Sall bi te ba tey nekkul loo xam ne leeral nañ ko élucider nañ ko te loolu moo tax ñu ne ñuy ñaan Sénégalais yi que ñu ne fi mu toll nii nañu takku àndandoo def benn say ngir jëlee fi régime bii nii ngir ñu mën a leeral li nga xam ne mooy suñu alal gi nga xam ne tongtonge ko ngir bu ëllëgee ñu mën a rendre compte ci li nga xam ne moo nekk peuple sénégalais bi ci bi ñu yooye woon suñu réew en deux mille vingt quatre honorable député Serigne Abo Mbacké Thiam Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal man maa leen di jaajëfal waa réew mi FM ci opportunité bi nga xam ne may ngeen ma ko ma mën a wax ak askanu Sénégal ci jafe-jafe yi nga xam ne moom moo nekk ci biir réew mi joxe aussi suñu xalaat ak suñu gis-gis ci li nga xam ne moo nekk tolluwaayu réew mi maa ngi leen di remercier bu baax a baax. may fàttali ne député nga ci assemblée nationale bokk ci coalition wàllu Sénégal. waaw waaw waaw député laa bokk ci quatorzième législature bi nekk membre PDS bokk ci la grande coalition wàllu Sénégal di militer fële ca Grand Yoff ak ci département de Dakar jiite fi li nga xam ne loolu moo nekk ndaw ñi et di wax feri at mi ñu dugg yàlla na nekk atum naataange. yàlla na yàlla faj aajo yëpp et ñaanal président Abdoulaye Wade muy yàgg fi. et wax que ni Sénégalais yi nañu xaar Karim Wade il sera là incha allahu rabbi et il président de la République du Sénégal en deux mille vingt quatre. jërëjëf honorable député. merci